asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi di nuyu te di leen balu àq. ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq. ñu ngi leen sant tey bale àq. te di leen sant tey bale àq. ñoo ngi fàttali li ñu fi indi. ñoo ngi fàttali li ñu fi indi. moo ñu fi indi moo ñu fi bay. moo fi indi moo ñu fi bàyyi. moo ñu fi dajale. moo ñu fi dale. yàlla sunu borom. yàlla sunu borom. man jaamu yàlla sunu borom. man jaamu yàlla sunu borom. sant yàlla sunu borom. te sant yàlla sunu borom. te ñaan yàlla sunu borom. te ñaan yàlla sunu borom. jégalu yàlla sunu borom. jégalu yàlla sunu borom. tabul bu jeexee lu soxla lu may ko ku ko laaj. ku tabbu ji tabbu du jeex la boo xam ne soxla lu dul ku ko laaj. donc mu tànnal mu defal na ko. noo ngi koy ñaan lam nu tànnal mu defal nu ko. te jëmee ni ci lam nu tànnal. te jëmee ni ci lam nu tànnal. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. boole gi mu booleeg Serigne Touba. ci boole gi mu booleeg Serigne Touba. ñu ñaan mu saxal nu ci ndigalam. noo ngi ñaan mu saxal nu ci ndigalam. fegal ay tereem. te fegal ay tereem. ñu ngi sant bu baax di leen nuyu. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa barakaatu.